Bujën Waara ndeysaan waaw waaw Adoli bujon Waara ki nga xam moy pap Diame waaw waaw digënté Ndiol ak Ndama la li mo sut def ngemb lu rouge am lu bleu li Pape Diame moo def tente bi def ngemb rouge blanc bi ndeysaan ñoo bokk fu ñu jógee ndeysaan jël na ko ko sonn ci kaw mu koy yéem a fàqu waaw waaw waaw waaw ñu ngay bëri ndeysaan Adoli ak Pape Diame Neymar waaw waaw Adoli moo njool moo ñu féete ndeyjoor Pape Diame moo ñu féete càmmoñ waaw waaw jël oh, wër na ñu nga sa ñaar mu koy piij la ilaha illallah waaw waaw Pape daan na ko ilala Adoli jommi na ndeysaan Adoli jommi na waaw waaw Adoli na